soxna si firawna ak niñ ko reye yàlla wax na ci alquran ni wa daraba allahu masalan lilladina amanu imraata firawna eh, wax nañ ni imraatu firawna moom yi mooy bintu musahim wax nañ ni ci bani israil la bokkoon doonoon ku gëm ko sellal ak ngëmam daan jaamu yàlla ca suuf ba lay sax ni day doxi aajo bu génnee dem ba ca àll ba mu defa jaamu yàlla di ñaan yàlla ca àll ba ngir ragal ko def ci yootu firawn mbaa firawn di ci yëg dara moom asiya moom yi noonu yi la daan dunde ñu ne ci loolu la daan dund ba ñu rayee xasqiil ba ni ñu reyee soxna xaskil sos yi nga xam ni moo daan jaxasoog ñoom rey gu ñaaw googu yi nga xam ne dañ koo dugal ci ab pour moo ki doom tey jëf yooyu yëpp mi ngi koy jëf asia mu ngi leen di yerndu ci benn fenêtre ci palais Firawn di xool soxna si euh, xaskil sos yi ni ñu ko mbugale ak ni ñu ko reyee te lépp asia di jàkkaarloog moom biñ demee ba rey ko ba mu jeex moo ki doomam asiya gis malaayka yi jël ruugi yóbbu ko ngir teraanga ji ko yàlla fàggu ji ko yàlla xarol mu gën a am kóolute ci yàlla moom asiya moom yi gën a dëggal diine yàlla bi mu nekkee ci xaal boobu Firawna dugg si fa di ko xibaar mbirum soxna si xasqiil ak lim def ak fañ jaar ak moom asiya rek daal di tangoru ngam dal di koy dikal mu ne ko tuskara ñeel na yow firawn ay ya ka ñene yalla ana firawn ne ko xaj na ndof gi gaar sa xarit bi mo la gar asee ni ko genn ndof garuma waye gëm na ni yalla rek kay bur yalla moy sama borom di sa borom di borom mi ndefi nee na wolu woolu yaayam moom asiya ne ko sa dom ji ak ndox ni koy dugg si ngir ray gi ñu ray xaritam bu jigen bi muy lettkat bi nena asiya ni ko daga bëgg ma wedd yalla waye duma ko def dal di continuer di wax Nana di coow ba dañoo mujj fam ñeenti daaj tal ko ci diggante bi takk ko ba mu dëgër di ko mbugal ba nim faato nee na daaj yooyu ñu daajoon takk ci ay buum takk ko ci ay cëram di ko mbugal mbugal yooyu moo tax alquran di wax ni wa firaawna zid jëlee nañ ci Ibn Abbas mu wax ni Firawna dafa jël soxnaam soo si muy Asiya di ko mbugal ngir mu bàyyi diine jëm nekk te jàpp si ci diineem nee bi mu koy mbugal Muusa jaar fa mu ñaan ko ni ko ñaanal ma yàlla mu mu mu woyafalal ma mbugal mi bi Muusa ñaanee yàlla mu woyafal ko ko booba la mucc yëg dara lu bokk ci metit wi ba nim wujje borom wax nañ ni bi mu nekk ci biir mbugal moom yi la ñaan ni rabib ni li indaka baytan fil jannati wa najjini min firawna wa hamadihi wa najjini min alxami zalimin ni yàlla yàlla nag ma tabaxal ab néeg ci aljanna te musal ma ci firawna ak jëfam te musal ma ci tooñkat yi nee yàlla wax yu ko ni ko yëkkatil sa bopp nee na mu yëkkati boppam gis ab néeg ca aljanna buñ defaree wurusu dur nee na mu ree nee na firaaw na ni waaw xool gi ndox rek ñu koy mbugal mbugal mu tar mii muy ree waaye fekk ni dafa am lu mu gis te firaaw na mënu koo gis firaaw na ak étage ba mu doon tabaxlu قال الله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى yàlla nee na firawna bi mu jaaxlee ci mbir Moussa dafa wax maana ne ko tabaxal ma benn taax ngir ma yërndu ngir mu mën a jot jombaxtane asamaan ba yërndu yàlla Moussa ji muy wax